asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa uh, mbokki jullit yi uh, mbokki group bi daara umul kitab ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar seen mbokk Maodo Abdoulahi Mbacke uh, fii ci Belgique tey nag dama ñëwoon ngir waxtaan ak sama mbokki jullit yi sama mbokki jàngkat yi Euh, ci fàttaliwante ci xam-xam ak yoonu sàkku xam-xam ndax groupe bi dafa nekk groupe bu am solo ndax lépp lu tege ci xam-xam rek day daal di am solo lool te ndax mooy bunt bi defe naa ngir sax xam li la fi indi ba man caa nekk day fekk nga xam ba noppi Euh, sàkku xam-xam nag comme ni ngeen ko xamee duma guddal ci di ci wax ci manzila bi nga xam ne moom la am muy euh, dayo bi mu am ci lislaam ndax loolu xam ngeen ko euh, ñëpp xam nañ ne dafa nekk farata ci ab jullit mu xam jéem a xamlu li ko boroomam sant jéem caa nekk tamit waaye li ma bay li may bëgg waxtaan ak yéen ci fàttaliwante rek mooy ci loo xam ne ci istinbaat ci xalaat ak istiqra muy topp alxuraan di ko jàng ak xadiis yi ak waxi boroom xam-xam yi lépp boo ko xoolee ak alwaaqian muy réal réalité bi euh, da nga ci mën a am ay tomb yoo ci jànge génne ko ci baaxe ko ki nga xam ne da cee nekk wala ki ko bëgg a def ngir njariñ li gën a mën a euh, am solo ndax waxtu doomu aadama ak dundam dafa gàtt kon buy def dara war naa mën a seet nu muy def ba waxtu am am maximum mu mën ko utiliser ngir mu mën a am rendement bu bu baax bu doy euh, comme noonu ma leen ko waxee nag xam ngeen ne doomu aadama ñëwul ci kaw suuf indaale xam-xam comme ni ko borom bi subhaanahu wa taala waxee ci alquran wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuna shay'an wa jaala lakum wa jaala lakum sama wal absaara wal afida loolu defe naa leer na mooy ba ñuy ñëw indiwuñ xam-xam indiwuñu dara noonu lañ fi ñëwee sunu borom jox waaye daf ñoo jox ay matuwaay yoo xam ne mën nañ caa jànge kon dafa mel ni waajal nañu benn bi mooy asama wal basar muy jox ñu ak dégg jox ñu bët yuy gis waaye jox ñu tamit xel al afida foofu defe naa ne li muy tekki man li gën a daal sama xel mooy xel waaye du xol comme niñ koy faral di déggee léeg-léeg wala di ko ci yenn tafasir yi waaye defe naa ne ci xel xel moom mooy li nga xam ne mooy moyen bi nit mën a jànge ndax xol moom dafay dafay yëg xel nag day jàpp di analyser di di wëlbati di teg di natt di di xam di xàmmee euh, muy nekk moyen bu am solo te defe naa loolu mooy manaatu ak taklif mooy tax xel moomu mooy tax sax ñu ñu togg ñu togg la dara maanaam teg la nga nga nekk mu kallaf nga nekk koo xam ne danañ la laaj ëllëg ndax nit ku amul xel kenn du ko tere waaye kenn du ko digal kon mooy it takrim bi yàlla wax ci alquran lii may wax nag wax dëgg yàlla euh, sama gëm-gëmu bopp la doonte xam naa ne léeg-léeg nga gis ko ci téere yi waaye nit boo jàngee ba noppi da ngay dajale te bañ sukkandiku saa su nekk ci li nit ñi wax lu weesu alxuraan ak sunna ku ko man di wax euh, doon lu mu bari bari xam-xam man ngaa mën nga caa dugal sa wax mën nga caa dugal sa euh, mën ngaa am it sa déggin waaye bu mu génn rek biir cadre li nga xam ne ñëpp xam nañ ko muy li alxuraan wax ak li na wax moo tax déggin dafa yaatu yàlla daf ñoo may xel ngir ñuy xalaat ngir ñuy mën a analyser ngir ñuy mën a yegg ci yenn résultats yi muy istintaaj yi nga xam ne moom la ñuy def comme nag dañ fee ñëw te indiwuñu dara ci xam-xam waaye yàlla baax ñu jox ñu ay moyens muy yooyu ma la limal muy asama wal basar wal fuaat loolu ngir ñu mën ko ay jumtuwaay la yoo xam ne ndikki ki dafa war a jëfandikoo bu ñëwee ci àdduna ngir mën a jàng moo tax lislaam daf ñoo teel a wax nañu nanu jàng muy liir muy iqra bismi rabbik ak yu mel noonu nuun wal qalam wa ma yasturuun ak ay yi nga xam ne yépp day yëkkati xam-xam yëkkati boroom xam-xam yi waxit ci ñu dëgmal ci sàkku xam-xam euh, xel mu ñu sunu borom jox dañ ko war di ko jëfandikoo ndax moyen la moyen bu ñu la ko joxee da ko war a jëfandikoo moo tax bi mu waxee ne sama mbindeef yi bari na waaye yéen dama leen a teral man taraanga yooyu wax dëgg yàlla jàpp naa ne bari na waaye la ca gën a am solo nga xam ne bu amutoon daanaka doo mën a jëfandikoo dara mooy xel moomu wala xat karam naa bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdila kon kon takrim boobu mooy mooy mooy mooy mooy mooy xel nit nag bu dëgmalee di sàkku xam-xam am na motivation bu am solo boo xamante ni yent bi sallallahu wa sallam leeral lan nañu ko muy fi muy waxee naan ku jóg di sàkku xam-xam yàlla yombalal la yoon wi moom moo lay gàttandu moo lay yombalal lépp man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala llahu lahu tariqan ilal ilal janna loolu motivation bu rëy rëy la ci ki nga xam ne dafay jóg di sàkku xam-xam ma a wax ne nag tomb yi buñ ko bàyyee xel kiy jóg di sàkku xam bu ko bàyyee xel yàlla mën na koo defal ci tawfiix ci la muy sàkku mu am ko bi ci njëkk mooy mu sellal sellal diggante moom ak boroomam maanaam sàkk xam-xam bi muy sàkku jëmmi yàlla tax loolu nag ni ma koy mën a leeralee mooy na ca sàkku ngërëmul sunu borom ngir lan mooy kii sàkku xam-xam na xam ne li tax mu koy sàkku mooy xam li ko fi indi muy xam sunu boroom xam àq ji nga xam ne sunu borom am na ko ci moom ak àq ji nga xamante ni moroomam mi nekk ci kaw suuf mu nekk fekk moom am na ko ci moom loolu dafa am solo loolu ci liñ mën a leeralee li wa ci illaahi la mooy sàkku ci ngërëmam ngir man koo jaamu waaye it boo ko jaamoo ba noppi nga dimbali ci euh, sa mbokk yi nga fi nekkal ci kaw suuf te dégg naa ko léegi euh, seen benn mbokk bi jiitu woon wax ci njariñu xam-xam wala sàkku sàkku xam-xam loolu dafa nekk lu am solo kon point bu njëkk bi mooy sellal ndax lépp lu sellul lépp lu àdduna rek tax boroom du ca jariñu ca àllaaxira te ab jullit ñaari kër la am muy kërug àdduna gi muy waajale kërug àllaaxira gu muy muy gi muy waajalee kërug àllaaxira loolu moo tax mu am solo nga xam ne lépp lu muy def ci àdduna war na caa suuraale na Euh, sa tuyaaba yowmal xiyaam la cay sàkku noonu la ab jullit di xalaatee loolu mooy li wacil la ndax loo deful li wacil la daanaka àdduna tax nga koy def ndax ñaari kër yooyu rek moo fi nekk moo tax suñu borom waxti al muridu muy man yuridu minkum man yuridu dunya minkum man yuridul axira am na ci yéen ñu bëgg àdduna rek seen seen yitte yépp àdduna la waaye am na ci yéen ñoo xamante ne nii alaaxira moo leen moo leen ñor wax ne it ne ku àdduna ak àllaaxira ñor sunu borom jox la ñaar yépp waaye ku àll àdduna rek ñor sunu borom mosal la ci tuuti waaye yomal xiyaam doo fa am dara am na ci aaya yoo xam ne dafay dafay dafay leeral yooyu ci alquran yu bare bare bare mi mi mën nañ cee jox misaal bu tuuti rek man kaana yuridul xayaata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubxasun gis nga gis nga aaya yooyu nit koo xamante ni sa yitte yépp àdduna la maari day taali xëy na yàlla dana la ci musal fii waaye yomal xiyaam doo fa am dara kon nag nit kiy sàkku xam-xam war naa war naa jiital euh, sellal diggante moom ak boroomam euh, sellal nag defe naa ne euh, taarifaat yu bari na waaye xam naa ne fexe ba yow doo ci am cër loolu lu am solo la maanaam mu nekk xaalisam li wacil la ndax maa xalu sa li wacil la mooy nit ki génn ci génn ci boppam mu nekk mu nekk mu nekk jëm yàlla yàlla yàlla dong dong tax nga xam ne àdduna du ca du ca am yoon doonte nag danga ko mën a jëfandikoo ngir ngir ngir ngir ngir àdduna waaye boo koy def sàkku ca ngërëmul yàlla moom moom mooy tax beneen bi mooy ngay ngay sàkku ndimbal ci yàlla ndax doomu aadama mënta ci ay pexeemi kese kese kese mënu koo mënu koo permetre pour mu am li nga xam ne moom la bëgg moo tax ihdina siraatal mustaqim li ñuy sàkku li ci gën a mag mooy yàlla dimbali ñu ban man koo jaamu te jaamu googu bu ñu ci dimbaliwul sax du mën a sotti moo tax ci alfaatiha da ngay wax ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'anatu bi bil bil ibada mooy sàkku ndimbal ci lépp looy man di di wut te loolu alxuraan wax na ko wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waqul rabbi zidni ilman kon di ñaan yàlla mu dimbali la ci yoonu sàkku xam-xam loolu lu am solo la ci nit ki koy def xam-xam bu mu ci mën a doon nag moo xam xam-xamu diine la moo xam-xamu àdduna la beneen bi mooy euh, nga fexe ba sa euh, effort indi individuel bi nga xam ni moom ngay def loolu mënta ñàkk nga am pastéef am ak dogu am ak dëggu ci li nga xam ni moom nga bëgg ndax loolu moom li li nit ki mënal mënal boppam la bu ko jógut def ko euh, dara du sotti wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzaahu al jazaa al awfaa bi mën nañ koo firee nu bari mën naa nekk ci yawmal xiyaam mën naa nekk ci àdduna waaye mën naa nekk ci lu baree baree baree baree bari waaye ala kulli xaal nit ki faw mu jog def effort waa ji day wax na taallam fa laysa al maru yuladu aaliman wa laysa axu ilmin kaman huwa jaahilu xam nga kon kon kon kon nit ki du ñëw rek andaale xam-xam faw nga daal di def dara laa la yamtati ul majda man lam yarkabil xatara wala yanaalul ula man qaddama alxazara man araada al ula nafan nafan bila man man araada al ula afwan bila taabin qada walam yaqdi min idrakiha watara coono mënta ñàkk ngir nga am dara moo tax lépp lu baax looy sàkku fa mu metti moo tax al juhdul fard yi moo mënta ñàkk mooy nit ki def effort individu nga xam ne ànd ceeg dogu ak pasteef ngir li muy sàkk mu man ko am ndax xam-xam yombul xam-xam yombul ndax xam-xam dafa gën lépp dafa gën a cher lépp li gën a baax nag toujours moom mooy gën a jafe kon kii sàkku xam-xam war naa bàyyi tomb boobu ginnaaw sellal gi ginnaaw sàkku ndimbal ci yàlla gin euh, war na caa góorgóorlu moom ci boppam ba def ca kem kàttanam beneen bi mooy mu bu ko buy sàkku nekk ci yoonu xam-xam lépp lum xam ci lu baax na tàmbali di ko jëfe tax loolu mooy tax xam-xam bi sax nit buy jàng théorie rek te du pratiquer xal xal xal naa sonn xal naa sonn ci àddunaam ay waxi kese soppiwul dara du la soppi du soppi leneen ma jox la misaal ci ne tey ki nga xam ne dafa bëgg jàng dawal oto bu demee ñu jox ko ab livre mu jàng kot yépp bu mu jeex tàkk tàkk tàkk te toogul ba léegi dugal ci oto ba léegi jël volant bi ñu ja ñu jéem a dawal kooku du du du du mas a mën a dawal oto donte xam na règle yëpp noonu it la xam-xam mel rawatina xam-xam lislaam nit ki buy jàng théorie rek mën ngaa jàng alquran tàmbalee ko alif laam mim ba naasi waaye boo ci jëfewut dara daanaka du nekk ci sa dënn ay wax kese rek lay doon te loolu du la du la dimbali loolu kenn du ko tuddee xam-xam euh, kon loolu lu lu lu am solo la. Euh, jeexal fànni xam-xam yépp te te ragaloo yàlla te jëfewoo ko loolu amul njariñ ci nit ki euh, ka masali ximaari yaxmilu aswara noonu misaal boobu la la sun borom joxe ci ci kuy euh, am xam-xam te doo ko jëfe te lool daanaka taxul ñuy jàng kon kon al amalu bil maalum muy jëfe li nga xam lu am solo la al ilmu wal amalu jawharaani li xayray daaray ni yejlu baani maanaam boole ñaar yooyu dafa dafa dafa nekk lu am solo ndax mooy indi euh, taraanga àdduna ak alaxira kon loolu lu am solo la mooy di jëfe li nga xam dana tax xam-xam bi sax dana tax mu yokku ndax lépp looy jëfe doo ko doo gaaw a fàtte doo ko gaaw a fàtte te day nekk ci yawit saa su nekk saa soo ko soxlaa rek dafay daal di ñëw du jar ngay ubbi ay téere di ko gëstu ji waat wala di ko di ko wëriwaat waaw ndax euh, xam-xam euh, ci ci dënn lay nekk bu xësee nekk xam-xam bu dugg ci dënn borom di ko jëfee loolu dootul dootul génnaat dootul gaaw a génnaat al ilmu fi sudur laysa al ilmu fi sutur loolu kon ñaar yooyu te lii tax mu dugg ci ci sadr bi toog fa mooy nga mën koo nga mën koo jëfee te sellal ca mooy tax tamit barke barke barke am ca mooy indi tamit ma mooy indi tamit xikma waaw xikma baax na lool waaye xam a ko gën ndax xam-xam day àndaaleeg xikma léeg-léeg lu lu lu ci bare bare bare mhm. beneen bi beneen tomb bi ci bi nga xam ne am na solo lool tamit mooy fi ma tàmbalee woon mooy xel mi la yàlla jox nga di ko nga di ko jëfandikoo ci booy sàkku xam-xam loolu li ma ci jublu mooy bari na ci jàngkat yi sama classe yi koo xam ni dañuy liir ay waxi jàmbur rek lu bari lu baax la nag mooy di liir di di di moo xam ginnaaw alquran ak na moom nga xam ne mooy sunu masaadir mais leeral yi boroom xam yi nga di ko jël di ko liir lu baax la waaye bul fàtte mooy bu fekkee am nga alaat yi am nga jumtuwaay yi nga xam ne moom nga soxla muy làkk lu am solo la al alat nga xam ne xam nga lugal arabiya bu fekkee ne alxuraan ngay jëfandikoo wala sunna ñu bind ko ci arab nga fexe ba man làkk bi maa ngi lay ñaan leen yow mi sàkku xam-xam mooy que léeg-léeg ubbil sam xelu bopp nga liiral sa bopp ci alxuraan direct ak sunna nga def istinbaat ñeent yii ma lay bëgg a wax nga xam ne alxuraan a ko tudd boo ko jëfandikoo te ragal yàlla sunu borom mën na laa defal fatxu boo xam ne di nga xam ci biir alquran loo xamante ne nii soit kenn waxu ko wala boog ña koy wax du bari wala da nga ca am ay tawfiix ci dégg goo xamante ne nii lu yéeme yéeme moom lay doon muy attadabbur loolu xel a koy def afala yatadabbaruna alquran am ala xulubin axfaaluha afala yatadabbaruna alquran walaw kaana min indillahi la wajadu fi ikhtilafan bari na ci wàllu waaye eh, loolu eh, loolu dafa am solo mooy attadabbur di settantal li ngay jàng di fa taxaw di ko di di ko xalaataat ndax jamono bi ngay taxaw di xalaat rek foofa yaa ngi def effort joxlu bi mu ngi ñëw xel mi mu ngi tàmbali ubbeeku nga koy ngay xool aay bi di xool li ko jiitu di xool la ca topp di xool niñ ko tëggee di xool sarfu bi di xool luxa bi di xool zaman bi di xool sababu nuzul bi di xool leneen lu mu lu mu lu mu mën a doon lii nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng ñoom ñoom laay waxal ci côté boobu ndax ki jàng bu fekkee ne am na matériel yooyu ba noppi pour bëgg a dimbali ñeneen faw mu mu mu am genn dégg gi ba mën a ba mën koo jot li ci ci ñi nga xam ne ñoom la bëgg a waxal kon loolu lu lu lu am solo la ndax jàng nii rek kenn wax dara nga jël ko nettaliwaat ko loolu loolu loolu yomb na lu baax la nag lu baax la muy dégg lu baax jottali ko waaye ka wax lu baax loola juhdu ba mu def ba génne ko ci biir alquran wala ci biir sunna xëy na yow boo ko defoon tamit da ko am ndax yàlla mais men xel mi donte wuutale na moom moo bind wuutale waaye ku nekk jox na la xel ku nekk jox na la loo xam ne joxu ko sa morom loolu moom zalika fadlullah yuti man yasha wallahu zul fadlil azim te ixtilaaf at tanawwu moom am na muy wuute gi nit ñi wuute ci ay may ak ay mawaahib ak yooyu yépp am na waaye asbaab yi moom mutawaffira muy muy sabab yi ku ci jaar rek yàlla dana la jox dara yii nii baat yi ma lay wax dafa ñëw ci alquran muy at-tadabbur beneen bi mooy at-tafakkur moom it xel a koy def allazina na fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batila yooyu loolu loolu daf ñuy soññ pour ñuy xalaat mm-hmm. pour ñuy xalaat di di jëfandikoo sunu sunu sunu xel ngir mën a yegg ci yenn asbaab boo gisee suñu borom dañu wax nañ xalaat ci univers bi xalaat ci asamaan xalaat ci suuf xalaat ci biddiw yi xalaat ci taw bi xalaat yooyu yëpp ngir ngir tamit jàng li ñu wër la ba man fee ba ba moyens yi fi nekk ñu mën koo jariñoo mën a gën a jaamu yàlla li tax européens yi ñu toujours ci wàllu wàllu googu mooy ñoom méthode bi comme àdduna moo leen ñor ñaar yi dañ ko dañ koo jëfandikoo bu baax a baax a baax te lu ci baree bari wax dëgg yàlla nag ci ci xam-xamu lislaam ci lañ ko jëlee sax ndax ñëpp xam nañu histoire euh, lislaam ci tàmbalee ko ci ca bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee ba nit ñi xam ni leen lislaam orienté ci wàllu xam te du xam-xamu euh, julleeg jàpp ak rek mais li leen wër lu jëm ci philosophie astronomie ak sociologie ak psychologie ak lu mu mën a doon mooy xam-xam bu mën a doon borom xam-xam yi dañ cee teel a xam ne lislaam téere bi téere alxuraan bi ñoom lay waxal mooy que alxuraan bii ñu nekk di ko jàng muy téere bi am na beneen alxuraan boo xam ne moo ñu wër mooy kiimtaanu suñu borom yi nga xam ne moo nekk ci univers bi ñu mën koo jàng man koo étudier mën a dem ci kaw suuf mën a dugg dem ci kaw jaww ji mën a dugg ci biir géej gi euh, mën a euh, def lu bare bare bare bare kon atafakkur mënta ñàkk nga ngay ngay xalaat ci ci li ngay li ngay sàkku beneen booy an nazar nazar mooy di xool di observer Euh, euh, euh, ay yi nga xam ne nekk na ci alxuraan tamit ci wàllu di soññ ci xool mu jëfandikoo baatub nazar loolu bari na lool xul siiru fil ardi fanzuru loolu bari na ci alxuraan buñ ko xoolee daf ñuy soññ kon ci di xool di jàngat di di kii xool boobu xoolu du xooli bët rek waaye xooli xel la tamit xoolu xoolu xel la beneen bi mooy ruya alam tara yooyu bari na lool ci alxuraan alam taraw kayfa xalaqa llaahu samaawaati yooyu ak alam moo xam alam taraw la wala alam tara bu mu ci mën a doon benn jamoo la wala far yooyu tamit lim ci jublu rek mooy ngeen xool xooli xel xooli xel xanaa xamu leen xanaa jàngu leen ci lu mel noonu loolu loolu loolu jublu kon yii ma la wax nga xam ne siyax yi yëpp benn la wala boog jegee na lool mooy maana tadabbur tafakkur ak nazar al ruya daanaka boo xoolee al ruya ak nazar booy xool ñaar yooyu mu ngi jëm ci li nga xam ne lu visible la lu lu lu lu bët mën a gis après jox ko xel mi mu analyser ko génn ci ay résultat bu fekkee at dabbur la at fakkur loolu li li li ci bare bari ay ay maani euh, abstract la loo xamante ne nii ay ay ay valeur lay doon wala ay ay ay mbir la yoo xam ne Euh, moo xam ay ay maani la loolu nekkul loo mën a laal ak sa loxo loo loo mën a laal ak sa loxo ndax xool asamaan si euh, xool guddaay bi ak ak ak yaatuwaay bi xool biddiw yi weer bi géej gi ak yooyu yëpp yooyu ay maani la loolu mënoo ko laal ak sa loxo ak ak tadabbur tamit mooy ayaat yi nga xam ne ayaat quraaniya la dañ koy jàng loolu moom moom mooy mooy at tadabbur mais nazar ak ruya moom dangay génn gis garab gi ni ni ni ko sunu borom binde lu tax garab gi ci boppam euh, bu tawee mu génn am ay xob bu ko defee nis tuuti mu meññ nes tuuti mu mu tontóor nes mu meññ ba noppi mën comme ni ko sunu borom leeralee ci alxuraan mën nga am tool jifa mandrin mandarin ji fa mango ji fa limo ji lépp di ko suuxatee menn ndox mi menn suuf si te bu noppee génn wóote lool meññet loolu dafa jardi xalaat dafa dafa dafa dafa jardi xalaat kéemtaanu suñu borom bi nekk foofu ci dooleem ci xarañam ak ak ak ak loolu lépp dafa dafa dafa yéeme lool te loolu tubaab yegg nañ ci ci ci ci ci ci méthode boo xam ne fexe nañ ba suqali seenu mbay ci ci ci ci ci ci wàllu googu kon kon loolu nazar ak ak ak ak moo leen ko moo leen ko indil ci wàllu fajit noonu la ci wàllu dëkkuwaay noonu la ci wàllu déplacement muy ay tukki mën a defar ay avion mën a defar ay ay ay ay ay ay bateau yu rëy loo xam ne dina mën a sarse loo xamante ni ci jamono boo xamante ni ni yàlla mu ngi ñuy wax nañu xool xéewalam yi nga xam ne ci ay giléem ay ay ay mbaam ay fas lañ daan tukkee def ci ay weer jamono dem ba nga xamante ne ni boo xëyee suba man ngaa xëyee Dakar euh, añ si Paris wala wala wala wala wala wala yu mel noonu loolu kon loolu xam-xam rek moom moom moo koy indi euh, kon euh, mbokk yi defe naa li may junj mu ngi bëgg a gudd waaye defe naa ne euh, jàpp naa ne euh, lu mat a bàyyi xel la euh, maa ngi ñaan tamit que wax ji mu mu leer ci nit ñi ba ba li ma ci jublu ñu xam ko mooy kiy jàng daal na jëfandikoo moye yi ko yàlla jox tey xalaat tey ñaan yàlla di ko sàkku ndimbal suñu borom man ko cee defal tawfiix point bu mujj bi nga xam ne moom laa moom laa bëgg a mujje donte ëpp na loolu mooy nit ki dafa war a am ak ubbeeku ci biir du ci dafa war am am ak ubbeeku mooy ouverture nit kuy sàkku xam-xam da ngaa war a ubbeeku ngir mën a am xam-xam boobu parce que xam-xam boobu mën naa jóge ci ku nekk ndax yàlla moom ay mayam dafa bari kon bul jàpp ne yow li nga am rek nit koo xam da ngaa raciste nga xam ne unsuri nga wala nga am par parloo nga xam ne fenn rek ngay jëlee ñenn rek nga gëm ñeneen ñi gëmoo leen kooku dana sonn ci àdduna te du am xam-xam parce que déjà am na aqaba bu rëy rëy am na baras bu rëy rëy boo xam ne ci li muy wut dana ko ci kii ndax dafa jël xam-xam yamale ko ci benn côté day jël fenn bàyyi fenn te loolu kenn du ko def jullit dafay yaatu gis-gis day yaatu dënn day ubbeeku donte dana am référence waaye day ubbeeku ci pare pour lépp lu mu gis mu am oyof ak ak kii benn bi beneen bi ma doon bëgg a wax mooy moom mooy woyof bi ak tawaadon képp koo xam ne danga ngaa rëy doo doo doo doo doo am xam-xam te loolu attawaadu min min min chiyamil ulama wa takabbur min chiyamil juhala loolu moom ñëpp ñëpp xam nañ ko euh, waaye ak ak ak suufeel sa bopp nit ki lu may gën a am xam-xam di gën a wayefal boppam di gën a suufeel boppam di gën a yëg ne xamut noonu la te boo yëgee ne xamoo di nga di di nga suufeel sa bopp waaye ki nga xam ne dafa am ak rëy ci boom moom day jàpp ne xam na xam googu moo koy rëyloo bu ko defee loolu da koy baare ba du du du mën a yaatal xam-xamam kon daal ouverture nga ubbeeku euh, ndax alxikmatu dallatul mumin anna wajadaha fa huwa xaq biha te anna moom xam nga sarfu sa euh, sa sarfu makaan la mais tamit sarfu zaman la booy xool ñaar yëpp mën na cee mën na mën mën na cee dugg fu mu ko fekk rek fu mu ko fekk ci waxtu wu nekk mën mën mën mën mën mën na koo jël mën na koo jël moo xam mën ngaa mën ngaa jàngee ci chrétien yi mën ngaa jàngee ci bouddhiste yi mën ngaa jàng ci hindu yi mën ngaa jàng foo foo foo xam ne mën nga faa jële xam-xam xam-xamu xam-xamu àdduna lépp mën nga mën nga mën nga koy fu mu fu jógee rek mën nga ko fay jàng ndax yàlla ala kulli xaal ala euh, ci ci mujj moom moo moom moo dimbali ñëpp moom moo moom moo jox ñëpp xam-xam ndax lépp ci moom la jógee lépp ci moom lay dellu kon euh, juróom benn point yooyu muy euh, sellal sa digganteeg sa borom sàkku ndimbal ci sàkku bi ngay sàkku xam-xam ak di ñaan ak effort individuel bi nga xam ne moom ngay def ak ak jëfe li nga xam ne moom nga xam euh, ak jëfandikoo sa xel ci xalaat ci setantal euh, li la wër euh, ak ubbeeku gi loolu lu lu luy dimbali nit la ci ci ci ci sàkku xam-xam kon loolu laa bëggoon a laytaaye rek ci wala barkeeloo ko ci ci bis bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu uh, nekk njariñ loo xamante ne nii danañu mën a dimbali ñun ñëpp waaye tamit di ko ñaan tamit ci uh, mu jéggal ñu ci njuumte yi uh, ndax lu baax rek lañ ci jublu woon yéen ñi koy déglu yit bu fekkee ne am na ci ay njuumte ngeen xam ne yéene la waaye nit moom matul waaye ñu ngi ñaan yàlla ak njéggalam te di ko ñaan it mu dolli ñu tawfiixam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.